Bemlezik Saudi Ibu Saudi Rek Vitão, sabe, seco, sabe, sabe Vitão, seco, sabe, sabe Vitão, seco, sabe, sabe Vitão, sabe Nossa, que anda com a área That's my bad boy Du sagst, ich kann mal hier So wie es für dich da ist Du war hüpfelig, cari Gioca da un miliardare Se non ci abbiamo forza nei cari Non state deadline Solo mi sbiricare Ma io me ne devo fare Gioca da un miliardare Se mi devo forza nei cari Devo forza nei cari Se mi devo forza nei cari Shower Ani police bu ñeme jàpp pëggi kooku président Baba du ko metti même mu doonul logique day légal job bi am na borom oto apparenti am chauffeur xolam mu nuñ benn vitesse ak moteur bu ñu lamb boole woon sax duñu bëree duma cat ma bëri fan su comme double moteur sàmm diis wembale six si gen xaru sa bopp kese ngay def def lu kenn musul def laajal ku ñu surveiller ba duñu rëcc kooku ay bëtam du tëju naxa naxa lijjanti wagel bi bu dee ay tànkam du tëju ma ban idée nga am si bu dee dafa fees mu ngi tuuru ba du tëju si dugg ñànka tag mi doo tuus moo tax internet fi nga ko mën a ñaata minute nga a ñaata minit nga ko mënal ma ne duma la faale liggéey ma kenn comme benn oto bu gaare bu la kenn yóbbaale am na yu ma dul baale bandi bu ndaw mais ma nekk bu mag ñu bëri dinañu rus ba duñ ma mën a tuddaat léegi wagi dina dootu gudd ñu ngi jëm di jàng lu ñu mënul sama noonu fokk lu ñu bëgg a manqué ñu bëgg rab gaal seen gisuma utanga ni ku si booy ku si dafa tàmm di buddi tàmm way fecc nga duggi fecc nga duggi ñoom fecc ñu duggi setal xamoon ni nga mel na même ku setul mun na jàpp leer ku gën a nekk bànni buñ ko jekkoo am na saasu dee na ki gën a nekk tapet buñ ko jekkoo xam na yoonu rëcc laay bi lu si topp moo si dees nañu géem sama noon yi nañ ma gën a xeex ba dee su ma amee jàmm duñu reete duñu reet ñu gëmul yàlla am na kese mooy ñu gën a réer am na ñi ko jàng xam ko gën a réer adduna bi gën a dem lu ta nekkul jiitu njëkk a dee ñii di màgg dem ba màgg ñi la a dee bu dee amul lu dul jàll amul des loo fi mën di def dina jeex yow mi réer nga laaj sa sëriñ bi lay seet nee nga da nga cher di nga dee yeewule bokkul comme ni nga koy setaale film début ba si biis même acteur bi dina dee ñu doog a xam lu leer ku nekk li nga dina feeñ gën a nekk Thiès bu amul zis avocat commissaire lu du nguuri yàlla du fa feeñ am na ngi doon dund ni duñu dee yàlla woote ñëpp dem bëri doole lool li bu dee pousso la mooy seen capo el capo du fisu Pablo boy kusi mooy seen capo yenn gaay ba ñu ruuxee xut bi ñu si lañ koy gën a ñeme maa ngi def lu set na neewuñ bandi salte bu ma jege pour sa mooy jamono bërëm pour sa judul tànde saa dépense si guddi maa bi ma teen def si paquet soo bëggee ñu vee def da gaa ñu géré ma fi a bandi musu suude ndax si jum dañuy reyante am naa carte faxamante moom laa duggee ba biir panam nga may xajal ni may gisee dalay sonal doxandak ki jàmbu ne sa raq tànke amuñ jëkkër duñu génn waa si pet munoo fexe ba duñu fooy comme ni ngay defee si yenn wooy duggu boîte cinéma biir town capital boy town du ma nduróog benn animal animal bu mbëkkee guddeeg bëccëg maa ngi si nekkul piqué la may reket raayal tabul waxu kon ku yor sa lekket daf yi xamuñ guddeeg bëccëg mooy tuul wóorul bless six. Quand redis.